أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi kon ñi ngi dellusiwaat ak yéen rek ci suñu jataayu fàttalante ak yéen soññante itam ak yéen ci xew-xew bi nga xam ne moom lañu dëgmal ci bis yi ci suñu kanam ñu miin ko lool muy tabaski di bis boo xam ne bisu mbégte la bisu defalante ay teraanga la itam bisu baalante ay àq la waaye itam nag bis la boo xam ne it bu doy waar la ci bu ñu ko jàngatee dëgg-dëgg ndax bis la itam boo xam ne dañ ci war a jànge taqwallaay dañ ci war a jànge bu baax gën a wekk sun boroom subhanahu wa taala weegu jëfe ay ndigalam ak wattandiku ay tereem bisu lislaam la bis la boo xam ne kon waxtaane ko dana am njariñ ñu bëggoon rekk fàttalante ak yéen ci kon tabaski ak sabab bi nga xam ne moom moo ko waral ak li ñu ciy def itam ñu jàngalante ci lenn lu ci nekk ni ñu ko diglee mel ne gàttu tabaski boobu nga xam ne danañu ko wut tam war képp koo xam ne rek moom mën na ko nga xam ne maanaam ki ñu ko sàkku ci moom mooy ku ko man waaye nag su ko mënee ba di ko def itam mu am nu ñu ko bëggee ci ay melokaanam ak solos bis bi ak it lii mu làmboo ci ay jàngat yoo xam ne mën nañ ko cee jàngate dama wax nag ne ku mu war waaye war gi nag sunna la du warug waajib goo xam ne dafa nekk farata ci nit ki maanaam daal war gi warug sunna la sunna suñuy def la soo xam ne balay nekk ci yow sunna sax danga koy man waaye soo ko tëlee du nekk ci yow sunna su ko defee kon loolu ak ay njariñam incha allahu taala moom la ñu bëgg a waxtaane waaye nag day loo xam ne mënuñ koo waxtaane te tuddun jëmm ju sell jooju nga xam ne moom moo waral bis boobu ñu di ko wax xalilu rahmaan mu yonent yàlla ibrahima alayhi salaam nekk xaritu yàlla boo xam ne boroomam moom moo ñu yëgal loolo moo ñu xamal ne man def naa ibrahima man muy sama xarit wattaxasallahu ibrahima qalila kon loolu moom mel na ne lu leer la yàlla nañu yàlla nag xaritoo ñun ñëpp rek yàlla ñu ko yàlla defal su ko defee kon ñu xam le ne yonti yàlla ibrahim moomu mooy koo xam ne kenn la moom it ci ñi fi yàlla yónni woon ngir ñu woo doomu aadama yi ci dëgg ak njub ci dëgg ak njub ñooñu nag li gën a bari rek suñ borom subhanahu wa taala daf leen di teel a yee day teel a yee seen xel ak seen xol ak seen ruu ci moom nga xam ne ñoom bu ñuy xam di xàmme rek dañuy xàmme waale bëgg yàlla ak jiblu ko tax na moom yonent yàlla ibrahima alayhi salaam bi muy door a jóg li muy doon doon ndaw xelam ak xolam lépp mi ngi daj màggu suñ borom gi subhanahu wa taala ba tax na loo teel naa jëm lool ci jéem a xam ana kan moom mooy boroomam ak kawnu bi mu nekk itam kan moom moo ko sàkk nga xam ne teeloon nay laaj ci ndawam waajuram wu jigéen di ko laaj naan man kan mooma moom bam naan ko sax yaa man maa la moom ndax maay sa waajur mu ne ko kon yow kan moo la war a moom yow mu ne ko man sa baay mooma moom mu ne kon sama baay moom xanaa dana am boroom mu ne ko waaw ndax moom buur bee ko moom te fekk buur bi ci dëkk bi rek la ci jiblu mu ne ko nag kon buur bi kuy doon boroomam moom moom yàlla yooyu nga xam ne yaay ji foofu daf ko xaw a ne ko rek noppil nag ndax gone am na yooyu du ko jéem a xam fekk loolu leeru yàlla gi rek moo nekk ci moom xelame xolam di daj suñ boroom subhaanahu wa taala nga xam ne noonu ko alquran di misaale naan falama janna alayhi leylu raa kawkaban qaala haza rabbi waaye falama afala qaala la uhibbul afilin falama ra al qamara it baasiqan téewul mu ne qaala haza rabbi waaye nag falama afala qaala la in lam yahdini rabbi la akoon na minal xawmi daalin la ca teg ba ci sax jant bi falama ra ashamsa baasiqatan qaala haza rabbi ndax haada akbar waaye moom it tiwut falama afalat qaala yaa xawmi daf ne inni man bariun mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma kaana minal mushrikin loolu lépp nag suñ boroom moom moo teere yee xelam ak xolam ci loolu moo tax noonu ko alquran waxe ne wa isqaala ibrahimu li abihi azara atattaxizu asnaaman alihatan ne ko inni araaka wa xawmaka fi dalalin mubin nga xam ne baayam lay wax naan ko ndax dangay jàpp yàlla yi di leen def ñoom ñuy yàlla ne ko gis naa ne daal yow ak sa nit ñi nga bokkal ne ci dëkk bi te gëm li nga gëm maanaam ci ak réer ci ngeen nekk lim na nag azara am na ñu wax ne ku mel ni ibnu xabaas nee na ismu sanam la maanaam turu xaram la turu yàlla la ci yàlla yin daan yett ñoom te di ko jaamu ibnu jarir ne tur boobu baayam noonu la tudd fekk baayu ibrahima alayhi salaam moom li gën a siiw dañ ne taarix la tuddoon taarix nga xam ne waajuram wu jigéen moo tuddoon shaani soxnaam sim yoroon tuddoon saarata ummu ismail nag nga xam ne moom lañ mooy jaamam bu jigéen boobu mu defoon soxna moom moo tuddoon hajara waaye teewul foofu comme noonu ma la ko waxee am na boroom xam-xam yu wax ne xañ na kon daa yoroon ñaari tur waaye azara ci ay turam la bokk ak taarix comme ni nit ñi di faral di amee tur yu bari bokkut am ñu déedéet xañ na benn bi laqab la woon ci moom maanaam mën na nekk benn bi turam benn bi aw dàkkantal wala sant ci misaal waaye daal moom leer na ne baayam la wax ndax li abihi la alquran wax atattaxisu asnaaman alihatan inni araaka wa xawmaka fi dalalin mubin nga xam ne mi ngi wax baayam naan ko ndax da ngay jàpp yàlla yi ngeen wax ne yàlla te ngeen yett ko liggéey ko ci seen loxo di ko jaamu loolu day ak réer la nga xam ne noonu ko noonu ma ko waxe bi mu lëndëmee mu gis biddiw yi ñu kawe lool ci màgg gu yàlla màgg ci xolam ak xelam tax na mu jël la gën a kawe def ko muy yàlla falamma janna alayhi laylu raa kawkaban qaala haasa rabbi mu ne lii de xam naa mooy sama boroom ndax gis nga moom daa kawe moo tiim lépp waaye nag falamma afala qaala laa uhibbul afilin bi biddiw yi sooxee rek xolam bañ mu xam ne yàlla dëgg-dëgg doon luy dikk ka dem falamaara alxamara baasiqan bi mu gisee weer wi mu génn moom it leer mu ne ah haza rabbi kii moom matta boroom sama boroom a xam naa ne ndax sax moom moo gën a leer waaye téewul rek falama afala qaala la in lam yahdini rabbi la akuna min al xawmi daalin bi mu sooxee rek xolom daal di bañaat mu ne yàlla dëgg-dëgg du doon luy dikk ka dem te xam naa ne bu ma sama borom gindiwul dana réer ndax yii may jàppe yàlla du yàlla ba ni mu gisee jant bi mu leer naññ ci moom falama ra shamsa baasiqatan qaala haza rabbi ndax nee na haza akbar moom sax moo gën a rëy waaye teewul falama afarat qaala yaa xawmi inni bari'un mimma tushrikun teewul bi mu sooxee gisatu ko rek weddi na ko xolam bañ na ne loolu du yàlla man dañtalu naa ci li ngeen di bokkaale maa ngi jébbal sama bopp yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf yi mooy inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma kaana min al mushrikin nga xam ne moom yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yooyu pas-pas maanaam moom moom la amoon te fekk sax taxu koy mag te fekk sax taxul muy mag waaye teewul nit ay nitam bàyyiwuñ ko ca loola ñoom it di ca bëri ak moom di ca dàgg sante ak moom moom la naan wa xaajjahu wa qawmuhu bam na leen atu qaala atu xaajuni fillah ndax man waqad hadaani te it wala aqaafu ma tushrikuuna bihi illa an yashaa rabbi shay'an maanaam illa an yashaa rabbi shay'an ndax wasia rabbi kulla shay'in ilma ndax da ngeen di dàgg seen teg man ci sama borom mi nga xam ne moom moo ma gindi man day duma am dara lu may ragal ci li ngeen di bokkaale ak yàlla ndax yàlla mu ëpp doole loolu lépp yàlla gën a yaatu loolu lépp afala tadakkaru ndax du ngeen xalaat ndax man war na maa jekki ragal bant yi nga xam ne yéen yéen a ko yett di ko jaamu moo tax man maa war a ragal wala yéen yéen a war a ragal wa kayfa axaafu ma ashraktum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazil bihi alaykum sultaana ana nan laay ragale lii ngeen di bokkaale ak yàlla te yéen amuleen lu ngeen di ragal ci li ngeen di bokkaale ak yàlla te amuleen benn lay bu dëgër ci sukkandiku ngir def yàlla lii muy yàlla kon fa ayul fariqayni ahaqu bil amni in kuntum taalamoon ana ban ci kuréel yi muy man ak yéen ana kan moo ci gën a nekk ci sécurité ana kan moo gën a nekk ci kuurité te loolu xam nañ ne mooy ki gëm yàlla moo gën a nekk kuulute ci kiy bokkaale yàlla ak leneen moo tax mu ne ne alladina amanu walam yalbisoo bi maanaam walam yalbisoo imaanahum bi dulmin ñooñu moom uleeka lahumul amnu tey wahum muhtadun ñi nga xam ne gëm nañu seen borom subhanahu wa taala te seen ngëm googee raxoon ci genn tooñaange wala genn lëndëm ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo am dëgg-dëgg kuulute ñoo am sécurité bu mat sëkk te ñoom ñooy ñi gindiku dëgg-dëgg itam kon kooku ku teeloon a yeewu la ci wet googu ci gëm yàlla ak wéetal ko ak itam bëgg ko nii nga xam ne loolu noonu mu waxee waa pénc mi itam njëkk loolu noonu la waxe woon ak baayam ngir gindi ko loolu suñ borom subhaanahu wa taala moo ñu ko nettali ci alquran wadkur fil kitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mooy bim naan isqaala li abihi yaa abbati lima taabudu ma la yasmaa wala yubsir wala yuxni anka shay'a yaa abati inni qad jaani min al ilmi ma lam yatika fattabihni ahdika siratan sawiya banaa ko yaa abati laa taabudu shaytaan ndax inna shaytaana kaana lirrahmaani asiya yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabu min arrahman fatakuuna lilshaytaani waliya naan ko yow sama baay ah ndax da ngay jàpp loo xam ne mënul dégg mënul gis mënul boppam dara nga di ko def muy sa boroom di ko jaamu man day wax dëgg dikkal na ma ci xam-xam loo xam ne dikkalu la suñ boroom gindi na ma tey def na ci man leer kon ndax dooma toppi rek ndax rek dooma topp ma gindi la teg la ci yoon wi gën a jub naan ko yow sama bàyyi bul jaam mukk seytaane ndax seytaane dafa mooy boroomam te maa ngi lay ragalal mbugalum suñ borom subhaanahu wa taala ci boo toppee seytaane waaye gis nga la ko bàyyi wax mooy araqibun anta an alihati ya ibrahim banaan ko la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya ndax da ngay sabote ndax da ngay xeeb suñu yàlla yi yow ibrahim naan ko boo deltuwut ginnaaw ci li nga wax de danaa la jëm danaa la mbugal dàq ko ne ko nag ma sori mel ne nit koo doon wax naa ko jógal fii dégaas ci misaal waaye gis nga rek ki xam ak ki xamul ñoom duñu yem moo tax dane ko rek salaamun aleyka sa astaxfiru laka rabbiya innahu kaana bi afiya xam nga alxuraan mu ne wa isaa xaatabahumul jaahilun qaalu salaaman su ngeen dee wax ak ñi nga xam ne ñoom ay jaahil lañ xamuñu na ngeen wax rek jàmm gis nga bàyyam foofu ni mu tànge ak ni mu ko dàqe waaye teewul rek mu ne ko ah yàlla na jàmm yàlla nekk ci yow te xam naa danga xamul rek waaye dana la sàkkul njégul dana la sàkkul njéggal ci sama borom ndax sama borom innahu kaana bi afiya maanaam ko am ñeewant la ci man te it kuy wuyu sama ñaan ci bu ma ko woowee la wa atazilukum nag wa ma tad'una min dunillahi wa adduhu rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya waaye gis nga tiwul ba mu leen bàyyee te jàpp ci yàlla suñ boroom it jàppale na ko ndax falammaa i'tazalahum wa maa ya'buduuna min duunillah wa habnaa lahu isxaaqa wa yaquba te wa kullan ja'alnaa nabiyyan wa wahabnaa lahum min raxmatinaa wa ja'alnaa lahum lisaana sidqin aliya kon noonu tam la jëflante woon ak baayam doon na ko woo ci dëgg ak njub waaye bi bi ko ak réer jàppee ba muntu wuy leerug suñ boroom googu subhaanahu wa taala teewul ibrahima ci mbaaxam ak yërmandeem mu dig baayam ne ko dinaa la sàkkul njéggal ci yàlla looloo tax ginnaaw bi ci alxuraan da nga jàng faneen mu di ko sàkkul njéggal ci yàlla waaye loolu la ko waral mooy dig googu nga xam ne daf ko ko digoon moo tax moo tax alxuraan naañu ibrahima sàkkul na baayam njéggal waaye loolu la ko waral mooy daf ko ko digoon waaye ba mu ko koy dig naan ko dinaa la jéggalu sa borom it booba daa amoon yaakaar ci jàpp ne rek bu yàggee xañ na dana deltu ginnaaw waaye ba mu demee ba biir ko ne baayam maanaam du koy wëlbati ko topp boromam dajaa génnaat dañtaloo ba set wicc moom la alxuraan wax ne wa maa kaana istixfaaru ibrahima li abihi illaa amma waidatan wa addaha iyaah daf ko ko digoon rek moo tax waaye kay falama tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu ndax inna ibrahima la awwaahun alim kon kooku mooy yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ci njëlbéenam ni leeru yàlla teel a dugg ci moom mu teel a yëg yàlla ci xelam ak xolam ak ruuxam di ko jeex ci li muy gis lépp ba ni ko suñ boroom gindee nim ne wa kadalika nuri ibrahima lakuti samawati wal ardi waaye yaqin boobu ko suñ boroom doon sabablul ci loolu tam am na ko wala yakuna minal muqinin jooju ma wax kon kooku mooy yonent yàlla ibrahima alayhi salaam su ko defee nag moom ba tey moom la ñu bëgg a waxtaane digganteem ak doomam jooju di ismail nga xam ne moo waraloon bis bii ñu waxtaane tey muy tabaski kon yonent yàlla ibrahima alayhi salaam nit la woon koo xam ne yeexoon naa am njaboot yeexoon naa am lool doom ndax Ismaayil bi mu koy am am na juróom-ñett fukki at ak juróom benn am na juróom-ñett fukki at ak juróom benn Isxaaqa itam bi mu ciy topp fekk na ko mu am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent kon doonoon na mag lool soxnaam soosu di maanaam saarata it doonoon na mag lool te taxutoon rek ñu am njaboot waaye nag teewul suñ boroom ginnaaw bi mu jox ko Ismaayila ginnaaw bi it mu demaat ba jox ko Isxaaq Isxaaq jur Yaxqub Yaxqub moo jur Yuusuf kon dañuy xamle ne moom Ibrahima alayhi salaam soxnaam moo nekkoon kon saarata tam yàggoon ak moom te amuñu woon doom ginnaaw bi nag lañ dem ba saarata moomu digal ko mu jël jaamam boobu di Haajara may ko ko ngir mu def ko soxna bi yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam dañ koy gàttal rek ndax liñ bëgg a waxtaane xaj ci jataay bi bim jëlee kon Hajara def ko muy soxnaam ci la ko ci yàlla may Ismaayil ginnaaw bi mu ci amee Ismaayil nag ba noppi ci juróom-ñett fukki atam ak juróom-benn bi mu demee ci juróom-ñeent fukki atam ak juróom-ñeent yi ci la ko suñ borom mayaat doom ca aawo ba muy saarata nga ne saarata kon mujj na am doom moom moo jur Isxaaq isxaq jur yaqub ismail nag moom la hajara jur moom lañ naan moo meññ arab yi ci lañ bàyyi ko fekkee ku mel ne isxaq nag ak yaqub lu bari ci ahlul kitaab foofu lañu génn moo tax sax kan la ci ibrahima alayhi salaam doon rend ci ndigalal yàlla dañ ci am ay wuute ñi dañ ne ismail la ñenn ñi di wax ne yaqub la lu mel ahlu kitaab nag ñoom yaqub rek la ñu gën a notal ndax xañ na moom mooy seenum péete waaye nag mel na ne daal li gën a siiw moom ismail lañu wax te it booy xool alquran ni muy waxee da nga yëg ne ismail la wax li ko waral mooy bi ko nitam yi noono noonu ci ngëm yàllaam googu ba egg sax ci di ko tëkku moom la alxuraan na fa araadu bihi kaydan fa ja'alnaahum asfalin boobu tam génn bàyyi leen féete ak boroomam ci la waxoon ne inni daahibun ila rabbi te it sa yahdini daa di ñaan yàlla nag ne rabbi habli min as-saalihin di ñaan suñ boroom may ko njaboot goo xam ne gu barkeel lay doon ba suñ boroom may ko kim ko njëkk a may muy ismail mooy fa basharnaahu bi xulaamin alim ndax falama balaxa maahu saxi jooju ca la ko waxee ne ko gént naa sama borom digal ma ngir ma rendi la fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne nee na géntug yonent waxyu la loo xam ne yonent dafa gént suñu borom digal ko ko loolu waxyu la daanaka waxyu la maanaam digalul yàlla lu leer la daal ndigal suñu borom lu leer lay doon ci la ko waxee nag ne ko kon gént naa ci samay nelaw am ndigal ci rendi la inni ara fil manaami anni asbaxuka kon nag fanzur ma sa tara ne ko yow nag lu ciy saxlaat nooy def mu ne ko man danga fekk may ko nangu dogalub yàlla naa ngi lay wax nga jëfe li la sa borom sant yaa abati ifaal ma tuumar sa tajudini insha allah min asaabirin فلما أسلما وطله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين nga xam ne nangu na ngir waajuram rendi ko ci ndigalul yàlla loolu la alxuraan nettali ne ba mu ko tëralee watallahu lil jabin dañoo wax ne mooy daf ko këpp ngir bu bëgguta jaakaarloog jëmm ji xar kanamam di ko rendi mu defee na lu nga xam ne paaka bi ci kaw baat bi la ko teg ci loos yi ci ginnaaw ngir bañ koo gis am na ñoo xam ne loolu la ñu wax nee nañ foofu mu ko bëgg a rendee rek ngir jëfandigalu suñu borom foofu la ibrahima dégg kàddu gu ko woo wa nadaynaahu an ya ibrahim qad zadaqta ruya inna kadalika najzil muhsinin ne ko yow day dëggal nga gént gi la gi nga gént sa borom digal la ngeen nga rendi sa doom ndax dogu nga ci def ko sa borom nangu na nangul na la ko ba mel ne def nga ko waaye nag moo ko wottee xar mi nga xam ne bi mu gëstoo dégg kàddu googu ci la gisee xar mu weex tàll moo xam ne moom la mujj rey am na ñoo xam ne nag dañ naan teg na paaka ba bay rendi bi mu rendee la xool gis muy am xar am na ñoo xam ne noonu lañu ko nettalee waaye am na ñoo xam ne daal kàddoo ko woo di ko wax ne yow day dëggal nga li nga géntoon xat sadaqta ruya waaye nag yàlla nii lay fayee way rafetal mu gestu yam ci xar mi xam ne kon liy wax ji mooy suñ borom faye na ko xar mii mu rey ko te bàyyi jëmm ji ndax natt la woon bu diis ci moom ndax bëggoon na ko lool ndax Ismaayil ñi ko jurutoon sax bëggoon nañ ko ndax ni ko yàlla bindewoon ci taar ak yeewu akum xel nga xam ne ñi ko jurutoon sax ñoom bëggoon nañ ko waaye nag natt la woon bu diis la taxoon suñu borom natt ko itam ci di ko ko reyloo mooy yàlla gisoon na ne Ibrahim bëgg na Ismaayil ci xolam te suñu borom bëggul nekkandoo ak lenn ci xolub Ibrahim def na ko muy xaritam bëgg na xolam moom yàlla rek mu nekk ci xajuwul ak xolub Ibrahim ci leneen lu dul moom moo tax bi mu gisee ne Ibrahim mi ngi bëgg doomam jii di Ismaayil bëgg na ko te mbëggeel googu mu ko bëgg mën naa dem ba am lu mu bëgg a xajamal ci digganteem ak boroomam loola tax suñu boroom digal ko mu rendi ko nga xam ne bi mu demee ba nangu koo rendi ba di ko rendi booba ma ngay rey mbëggeel gi booba jëmmi bëgg gi mu ko bëgg booba lay rendi nga xam ne mbëggeel gi rendi na ko bi mu rendi mbëggeel gi rek leerug yàlla moo fa wuutuwaat bëgg gi mu bëggoon Ibrahima alayhi salaam leerug suñu boroom gi moo dollikuwaat ci moom ndax léegi rendi na mbëggeel gi leeru yàlla gi gën a dellusi itam ci moom ndax bëgg gi mu ko doon bëgg ba am ba mu di ko yëg ci xolam te yàlla bëggul nekkandoo ak lenn ci xolam moo soowoon mu teg ko nattub rayloo ko ko kon ci la ko suñu borom wottee la xar moom wan ko ne ko kat ñun yàlla aji rafetal nii lañ koy fayee inna kadalika najzi almuxsinin inna hada la huwa albalaau almubin waaye gis nga wa fadaynaahu bi zibhin azim loolu la ko suñu borom wottee am xar suñu borom nag sant ko it gërëm ko salaamun ala ibrahim kadalika najzi almuxsinin wéral ne innahu min ibadina almuminin yaa gis ne nag ginnaaw wa nag ca la ko yàlla mayaat sax nag ku ñuy wax isxaq moo tax mu tegaat foofu ne wa basharnaahu bi isxaqa nabiyyan min as-saalihin foofu sax fi lañ gën a sukkandikoo ba wax ne kon kiñ doon rey mooy ismail ndax ginnaaw rendi ga ak yu yëpp ba mu amee ba suñu borom nettali loolu la wane ne sax bégalaat nañ ko ci beneen doom muy isxaq mooy wa basharnaahu bi isxaqa nabiyyan min as-saalihin wa baaraknaa alayhi wa ala isxaqa wa min zurriyatihima muxsinun wa zaalimun li nafsihi mubinun kon yonent yàlla ibrahim foofu la jaar ak ismail suñ boroom feeñu na ko ci gént digal ko digal ngir mu rendi ko ba mu ko bëggee def tam doom ji nangu na dogal boobu suñ boroom wàccee ci kawam waajur wu jigéen it nangu woon na dogal boobu ñoom ñëpp ànd nañ nangu dogal bi suñ borom wàccee ci seen doom nga xam ne nattu la ci ismail mi ñu war a rey nattu la ci waajur wu jigéen wi ñuy jël doomam amul ku dul moom mu ji di ko rey waaye nattu la itam ci ibrahima alayhi salaam mi ko bëggoon lool tam doon doom moom it mu jël ko di ko rey nettali nañ ne sax saytaane jaar na foofu ndax dafa ñëkk njëw ci xelum waajurum wu jigéen ne ko fu ibrahima jëm ak sa doom mu ne ko dafa jëm ak moom ci ay yitte seytaane ko déedéet jëmut ak moom ci benn itte bu dul rey ko soxna si ne ko ana lu tax mu di ko rey mu ne ko neenaay boroomam moo ko digal ne na ko rey moom day neenaay boroomam moo ko digal ne na ko rey soxna si ne kon faqad ahsana an yutia rabba rafetal na kon rafet na ci moom mu topp ndigalul boroomam su fekkee boroomam moo ko digal loolu seydaan daal di xam ne kon amatul bunt ci waajuru ismail mu dem ci ismail moom it ñëw ci xelam xam nga nettali bi bu ne laa maanaam seytaan dafa ñëw ci yaayam wax ak moom ñëw ci ismail wax ak moom ñëw ci ibrahim wax ak moom du seytaane soo xam ne dafay def jëmm nii mu gis ko mooy ñëw gim ñëw ci seen xel ñëw gim ñëw ci seen xel muy hamazaat yi ak waswaas yi ci seen xel lay wàcc mel ne xelum yaayam dana ah waaw moom fu mu ko jëmee da ko nar rey nii rek bu ko defee xelam mu leer mi nag dellusiwaat ci ne loolu ndigalul yàlla te ndigalul yàlla mooy liñ war a jëfe moo tax bi mu dikkee ci ismail itam ne ko sa bàyyi jëmut ak yow fenn fudul rey la ismail xelam mu leer moomu ñëw na ci moom ne kon lii ndigalul yàlla la te bu ko bàyyam bëggee def li gën mooy nangu dogalub yàlla ni bàyyam nangu dogalub yàlla dogalub yàlla ngir rey ko mu ñëw ci ibrahim noonu moom it kadalika ndaka noonu kon ñëw gi seytaane ñëw ci yaay ji ñëw ci doom ji ñëw ci baay bi ñëw wàcc ci seen xel la ngir dugal ci ñoom ay waswaas ngir dëppaloo leen ci dogal boobu ñu war a def waaye loolu lenn sottiwu ci ba ñoom ñëpp nangu nañu nangu gu rafet ngir jëfe ndigalul yàlla loolu ci leen suñ borom fekke moom itam fay leen fay gu rafet ndax hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan suñ borom neen lu rafet lu rafet rek moom moo koy fay dégg nga su ko defee kon loolu nag ci ginnaaw bi loolu moo sabab tabaski tabaski bi ñuy waxtaane ni kon loolu moo ko sabab xar moomee nga xam ne moom la ko suñ borom wattee moo tax suñ eggee ci bis bi mu nekk sunna ci képp ku ko man moom it mu wut gàtt bu baax rey ko jaamoo ko suñ borom subhanahu wa taala waaye dégg nga alxuraan la in yàlla amul soxla ci deret ji ak ndawal gi waaye taqwallahi la bëgg ngeen jële ko ci suñ borom xastu bi ci loolu mooy buñ ci egsee jëmmi gàtt bi ngay wut ak di ko rey dafa nekk loo xam ne dafa mën a dellusi ci yow xew-xew boobu xewoon démb nga xam ne boo tëraloon sam xar tey di ko bëgg a rendi sa xel dana dem ci yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mi tëraloon doomam ngir rey ko ngir ndigalu suñu borom subhaanahu wa taala su ko defee foofu jàngat bi nga fi am yow mooy taqwallahi lay war a indiwaat ci yow muy wekk sa borom subhaanahu wa taala wegug jëfe ay ndigalam donte dëppwul ak sa bakkan waaye wegug tam wattandiku ay tereem donte tere yooyu sax daa dëppook sa bakkan nga xam ne da ngay taxaw temm ci jëfe li yàlla sant moo xam muy lu neex wala muy lu naqari waaye da ngay taxaw temm tam ci bàyyi tere yàlla yi moo xam muy lu neex wala muy lu naqari nga xam ne weg yàlla wegug jëfe ay ndigalam ak wattandiku ay tereem moom lañ war a jële ci bis boobu nga xam ne ñaari mbir mi ngi ci jànge nañ ci ne weg yàlla lu war la ci jaamam waaye jànge nañ ci itam ne nit ki war naa wattandiku ba xolam dara bañ ko dëkki lu dul boroom subhaanahu wa taala ndax yàlla moom bala caa ñëw kenn wala lenn da cee bañ a ne du ca fekk kenn te bu ñëwee ci xolub jaam bi du nangu lenn fekk ko ca ba ci yonente yi sax kon loolu mooy li nga xam ne moom la xew-xew bi làmboo nga xam ne saa buñ ci tollee war nañ koo bàyyi xel su ko nit ñi waajal ci yére yu rafet wala lekk gu neex wala naan gu neex it xaj na dëgg la bis bi laaj na ko waaye nag yow it na nga ko waajal bu baax ci jàngataat ci sa diggante ak sa borom yow nan la mel ndax ka teraanga ji ngay gis ci bépp benn jaam bu dégguloon boroomam ak doomam ak soxnaam moo ko sabab nga xam ne kon déggal sa borom dana la jural teraanga yi àddina ak àllaaxira nga xam ne kon yow saa boo ci tollee rek na nga ci jàngataate sa diggante ak sa borom bu baax ci nan nga def ak ay ndigalam ak it ci nan nga def ak ay tereem nga xam ne loolu bunt la boo xam ne buñ ko toppoon bu ma bu yaatoo yaatoo yaatu la waaye kenn ku ci xalaat rek dana ci mën a génneel boppam loo xam ne wàllu boppam lay doon digganteem ak boroom loo xam ne moo koy dund ak boroomam ndax kenn ku ne sa yaa gën a xam sa bopp ci sa diggante ak sa boroom ci lim la digal nan nga ca def ci sa diggante ak sa boroom itam lam la tere nan nga ca def kon kenn ku ne bu jëlee histoire bi jàngat ko rek dellu siwaat ko ci boppam dana xam fan la fare ci wetuk boroom subhaanahu wa taala su ca taxawee ci anam nga gën mu góorgóorlu ba sax ca su fekkee taxawu ci anam nga gëntam mu góor góorlu ba génn ci taxawe na nga xam ne abdan shakur jaam bu ñu sant te gërëm ko tam sant boroomam te gërëm boroomam noonu lay taxawe kon loolu ci gàttal mooy sababu tabaski su ko defee kon dañuy jàll ci leeral nag tabaski moomu ci boppam nan lañu ko bëggee nan lañu bëgg moom maanaam mel ni ci ay melokaanam suñ ko waxee mooy kon leeral rek ni nga xam ne maanaam moom lañ bañ mu am ji ci ay melokaan nga xam ne ki ko man bëgg nañ mu def ko gàtt boo xam ne bu baax lay doon te itam bu góor lay doon xar mu baax mu góor boo xam ne du am tam benn sikk ci sikk yi nga xam ne moom lay bëgg a wax dañuy bëgg mu nekk xar moo xam ne béjjën yi du nekk béjjën yoo xam ne yu damm lay doon maanaam xar moo xam ne sax amul ay béjjën yu yu mag du teem baax du teem baax maanaam liñ bëgg a wax mooy bu mu am ab góom ci béjjënam bu mu nekk xar moo xam ne béjjën bi daa damm te wéragut nekk góom nga xam ne mi ngi am deret waaye su fekkoon ne xar moo xam ne sax boo xoolee béjjën yi xaw nañu sutaante day mel ne benn bi daa mas a damm waaye nag loolu yàggoon na ba mu wér bu yàgg nga xam ne wér na bu yàgg loolu du wàññi dara dañuy bañ mu nekk loo xam ne béjjën bi daa dam mu nekk góom bu wéragut ci moom loolu lañ naan béjjën yi bu ci dara sikk su ko defee ba tey geen bi itam dañ ciy bëgg lu mel noonu dañuy bëgg mu bañ a dagg daggu geen bi nag moom wér gi ak ñàkki wér gi lañ ci sart maanaam su fekkoon ne geen bi natt nga ko ni mu toll soo ko xaajoon ñetti xaaj lu toll ni benn xaaj bi bu ci daggee rek xamal ne gàtt boobu bëgg nañ bu bokkut ak bu dul moom bëgg nañ beneen bu dul moom ndax daal geenu xar bi guddaay bi ni mu toll soo ko xaajee ñetti xaaj lu toll ne benn ceer ba waru cee dagg waaye su fekkoon ne geen bi nag boo ko xoolee tuuti rek moo ca dagg nga xam ne la ca dagg sax boo ko xoolee boo ko xaajoon ñetti xaaj du mat benn xaaj ba te itam wér na bu yàgg kon ba tey mu baax maanaam geen bi am na lu ci dagg waaye bariwul tuuti rek la boo xaajoon génn bi ñetti xaaj tollu ne benn xaaj bi te itam wér na maanaam dagg-dagg ba daggoon na waaye góom bi wér na bu yàgg kon su boobaa du wàññi dara waaye su fekkoon ne genn bi lu toll ne genn wàll gi daanaka daa dagg wala soo ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj bi dagg na doonte daa wér sax doonte daa wér sax su boobaa bëgg nañ beneen xar bu bokkut ak boobu kon li ma la wax moom mooy bopp bi béjjin yi bëgguñu mu dagg dam mu nekk góom bu wéragut waaye su fekkee béjjin yi dam woon na sax waaye nag wér na bu yàgg kon moom baax na genn bi it bëgguñu mu dagg nekk góom bu wéragut rawante naa nag su fekkee la ca dagg sax boo ko xaajoon ñetti xaaj day toll ne benn ba su boobaa dañuy bëgg nga wut beneen xar bu bokkut ak boobu su fekkee la ca dagg nag boo xaajoon genn bi ñetti xaaj du toll ne benn xaaj ba te itam wér na kon su boobaa moom baax na su boobaa maanaam baax na su ko defee ba tey nopp yi itam loolu lañ ci bëgg nopp yi itam dañuy bëgg mu bañ a dagg nopp bi moom itam kon danaan la su fekkee am na lu ca dagg na fekk muy lu bañ a bari na fekk muy loo xam ne lu néew la te itam wér na maanaam gaañu gaañu la woon boo xam ne wér na bu yàgg nekkul góom waaye su fekkee genn bi moom it maanaam nopp yi moom itam su fekkee la ca dagg soo xaajoon nopp bi ñetti xaaj lu toll ne benn xaaj ba dagg na kon dañuy bëgg nga wut ma neen xar mu bokkut ak moomu nga xam ne genn bi daal su genn wàll gi daggee dañuy bëgg nga wut ma neen mu dul moom waaye nopp yi itam noonu su genn wàllu nopp bi daggee baa mu xëtt xëtt mooy dafay bën bën ci biir tam yaatu ba nga xam ne xët xët boobee boo ko xooloon tey boo xaajoon nopp bi ñetti xaaj benn ceer bi toll na ni moom itam dañuy bëgg rek nga wut ma neen xar kon ñett yooyu laa wax muy bopp bi ak geen bi ak nopp yi nopp yi noonu ma ko waxee rek maanaam su fekkee daal la ca dagg lu néew la soo xaajoon nopp bi ñetti xaaj la ca dagg tollut ne benn xaaj bi te itam wér na kon su boobaa moom baax na waaye nag su fekkee la dagg ca nopp ba boo xaajoon nopp bi ñetti xaaj la ca dagg toll na ne benn xaaj bi kooku moom donte wér na sax dañuy bëgg rek nga wut ma neen xar nii kon soo bàyyee xel li ma wax nopp bi ak geen bi la ca dagg su ma tee ceer ba donte wér na yi dañuy bëgg nga wut ma neen xar waaye su fekkoon ni béjjën yi moom ngay béjjën bu damm te wér bu yàgg moom dara newu ci ginnaaw wér na rek doonu tut ab góom rek moom baax na su ko defee nga ñëw ci ay tànkam nga ñëw ci ay tànkam nga xam ne ay tànki xaram yi itam dañuy bëgg mu bañ a am sikk maanaam mu bañ a nekk xaram moo xam ne day soox làggi di soox làggi ga ñi bañ nag mooy làggi goo xam ne yow bu doxee rek nga xam ne xaram yi day soox nii nga xam ne sooxin wi daa fis daa fis làgg gi daa metti ci moom daa fis nga xam ne boo ko xoolee rek muy lëqiñ lëqiñ yi nga xam ne lii moom day soox nii nga xam ne daa fis lool subaa moom dañuy bëgg rek nga wut ma neen xar mu bokkut ak moom waaye nag su fekkee mel na ne luy soox waaye taxu koo am solo daanaka boo mutub seetlu sax doo ko xam ci moom su boobaa du wàññi dara su boobaa baax na nga bàyyi ko xel su boobaa kon moom baax na ba tey itam dañuy bëgg mu doon boo xam ne ay bëtam mi ngi gis dañuy bëgg mu nekk xar moo xam ne ay bëtam maanaam dara sikku ci nii mi ngi gis waaye su fekkee xar mi daa muuma nii nga xam ne daa daa daa gumba bokk su fekkee xar mi daa bu gumba nga xam ne du gis subaa dañuy bëgg rek nga wut ma neen xar maanaam mu bokkul ak moom fekkee gisul nii nga xam ne daa gumba moom dañuy bëgg rek nga wut ma neen xar mu bokkul ak moom moomu du miñ taamu wala nga xam ne itam bët yi sax mi ngi gis nii maanaam boo xoolee bët yi da ngay defee ne gumbawul waaye nag taxul muy gis xam nga loolu tam day am maanaam bët yi mën naa mel nii nga gis per bi lépp ci biir te fi mu ne taxul muy gis nga xam ne ni nga koy xamee sa baaraam bi boo ko juloon mën ngaa dem ba teg ko ci bët bi ci peru bët bi te du ko yëg ndax gisu ko su ko defee loolu mu daanaka moom ñàkk gis ñoo yam rek subaa dañuy bëgg nga wut ma neen xar moo xam ne du bokk ak boobu noonu dañuy bëgg nga wut ma neen xar moo xam ne du bokk ak moom ba tey itam mu bañ a nekk xar moo xam ne maanaam dafa muuma nga xam ne munta mbee nga xam ne maanaam mbee nii mënu ko nga xam ne bu doon nit da nga daa muuma ba tey kon dañuy bëgg nga wut ma neen xar mu bokkul ak moom ba dañuy bëgg nga wut ma neen xar moo xam ne bokkul ak moom su ko defee yéen nga xam ne maanaam giléem mi ngi fi ëpp ko lool gën koo rey ëpp ko it ndawal nag itam mi ngi fi ëpp ko lool gën koo rëy ëpp ko it ndawal waaye taxul ñu gën koo taamu su ko defee nga xam ne kon ab gàtt boo xam ne xar lay doon te nekk góor moom lañ gën a taamu sax ci giléem ak nag ak bëy nga xam ne xar mu góor sax boo ko tëlee am dañu bëgg sax kon nga wut mu jigéen donte sa xar mu jigéen lay doon donte sa xar maanaam lañuy njëkk wax sax mooy xar mu góor moo xam ne maanaam kenn tàpp ko maanaam xar mu góor moo xam ne taliwut mën naa tëb xar mu jigéen loolu ci yin taamu ci la bokk bu mu nekk xar moo xam ne dañ koo tàpp ba nga xam ne dafa tëli waaye nee nañ xar mu tàpp sax soo amul xar mu góor mu kenn tàppul xar mu tàpp sax su boobaa baax na subaa ba tey moo ñuy gënal xar mu jigéen xar mi nga xam ne naturellement ni ko yàlla bindee xar mu góor la waaye sax dañ ko tàpp ba mënul dara xar mu jigéen it du tee su boobaa moom moo ñuy gënal xar mu jigéen waa xar mu jigéen xar mi tàpp moo koy gën soo ko amul nag nga door a wut nag xar mu jigéen nga xam ne yow amoo xar mu góor mu kenn tàppul te itam mun tàpp sax amoo ko kon xar mu jigéen su boobaa moo fay sës ci liñ gën a taamuwaat su waa xar mu jigéen moo ñu nga xam ne xar mu jigéen sax moo ñu gënal béyu góor nii nga xam ne xar mu jigéen nag soo ko munta am kon day mel ne mënoo am lenn xar kon kon amoo xar mu góor mu kenn tàppul amoo xar mu góor it mun tàpp te ba tey xar mu jigéen sax faroo ko am kon subaa nag ngay wàcc si nag ci béy waa lañ fa sësaat ci liñ bëgg nga tabaskee ko maanaam moom mooy béy nga xam ne béyu góor tam lañ ciy taamu ak sart yan waxoon yépp nag ci béjjéen yaag geen baag tànk yaag nopp ya ak bët yi ak làmmiñ wi maanaam ci wax gi mbee nga xam ne kon béyu góor ngay wut su ko defee béyu góor wen ku wen tëpput woo xam ne kenn tëpp ko moom lañ wax soo ko munta am na nga wut béyu góor woo xam ne dañ koo tàpp soo munta am béyu góor wun tëpput ak wun tàpp nag nga door a wut nag béyu jigéen suba boo amee béyu jigéen maanaam moom la ñuy taamuwaat soo demee ba nga xam ne béyu jigéen sax amoo ko nag su boobaa mën ngaa wut nag nag watam nag wu góor wu kenn tàppul wala nag wu góor wuñ tàpp soo ko amut wala nag bu jigéen ba nanga ciy jógee dem ci giléem giléem gu góor gu gën tàpput wala giléem gu góor gun tàpp wala giléem gu jigéen nga xam ne foofu kon xooluñ fi ndawal gu bari gi waaye ndawal gu baax gi lañ fiy xool nga xam ne ndawal gu baax gi lañ fiy xool moo tax giléem ëpp ko lool ak nag te taxul ñu taamu ko ci tabaski ndax foofu ndawal gu baax gi lañ fiy xool bis la boo xam ne bisu teraanga la bisu feetu lislaam la ngeen war ciy jéema def ay bernde su ko defee xam nga su boobaa nu mu gënee rek moom moo gën nu mu mën a gën a baaxee rek xam nga mooy gën moo tax waaye so ka ngay xam ne dafa nekk maaka nekk ci aj gi war a def li ñuy wax xaddi yu kooku moom ndawal gu bare lañ fa soxla moo tax moom nu mu gën a rëyee rek noonu lañ koy bëggee nga xam la ñuy taamu dëgg-dëgg su ko mënoon mooy giléem su ko mënul door a ñëw ci nag su ko mënul door a ñëw ci xar su ko mënul door a ñëw ci béy ndax foofa ndawal gu bare gi lañ fa soxla ndax dañ koy jox fuqaraaw yi nga xam ne dañoo ñàkk kon suba nu mu gën a baree rek na lay gënee nu mu gën a baree rek na lay gënee su ko dee loolu tam kon lu mat a bàyyi xel la ñu xam le it ne kon buñ weeru tabaski xasee teru rek ba tey xamal ne ndaka jekk fekkoon na la ci bisi aj ndax weeru dugg si na maanaam aj moom yaa ngi ko sañoon sañoon a armal ci biñ duggee shawal mooy bi ñu waree rek waaye nag loo ko gën a jub rek muy gën di am solo nga xam ne kon boo duggee fukki fan yu njëkk yi bu weer wi teroo rek maanaam sopp nañ ci sax ku ko man nga woor juróom-ñeenti fan yépp nga xam ne bu weer wi teroo benn fan rek da ngay woor ba keroog ñuy egsi ci yow ma arafa nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu fan bi mooy juróom-ñeenteelu fan bi nga xam ne boo xëyee ci bisu tabaski bi maanaam ci ngay dog doon bis boo xam ne moom doo ko woor nga xam ne ki ko man bëgg nañ mu boole juróom-ñeenti fan yépp woor ko noonu su ko defee moom loolu day baax sax ci sill sill yeeg ture ture yeeg yooyu nga xam ne ñoom dana leen amal njariñ ndax dana tax bu ñu eggee ci bis boobu rek liñ bëgg a def lépp danañ ko mën a def liñ bëgg a def lépp rek ñoom danañ ko mën a def nga xam ne kon noonu sopp nañ ko koo xam ne maanaam mën ngaa woor juróom-ñeenti fan yépp rek nga woor ko ba egsi ci yow ma arafa nga xam ne sax moom da nga koy woor su ko defee nag boo xëyee nag ci bisu tabaski moom moom ngay ñàkk woor waaye loolu bu ñu ko waxee nag ñi ngi ci jible ki nga xam ne ajul nekkul màkk di def aj gi ndax ki nga xam ne day aj yow ma arafa boobu duñ bëgg mu woor ko dañuy bëgg mu noppaloo ko bañ koo woor ndax yow ma arafa bis bi daf ciy def ay coono yu bari ndax taxawaayu arafa baag yooyu yépp ay coono la yoo xam ne su ko boolee ak woor rek mën naa dem ba xëm wala mu sonn ci coono boo xam ne du ko jig moo tax ki nga xam ne dafa nekk màkk di añ moom yow ma arafa koor ga taamuwuñ ko ci moom waaye ki nga xam ne ajul moom yow ma arafa bëgg nañ mu woor ko ak sax yow ma tarwiya muy juróom-ñetteelu fan bi mooy suñ ne suba la yow ma arafa su ko defee kon ki nga xam ne mënta boolee juróom-ñeenti fan yépp woor ko mu xam ne kon yow ma tarwiya ak yow ma arafa moom ñaari bis la yoo xam ne bu ko mënee na góorgóorlu kon ba woor ko mooy buñ ne ginnaaw suba la tabaski ak buñ ne suba la tabaski ñaari fan yooyu mu yow ma tarwiya ak yow ma arafa ñaari bis la yoo xam ne bëgg nañ lool ku ko woor su ko mënee dëgg nag mooy mu boole moom juróom-ñeenti fan yépp rek woor ko nga xam ne weer wi day teru rek mu tàmbalee woor ba keroog yow ma arafa bañ xëy tey di tabaski mu door a dog su ko defee loolu tam kon ñu bàyyi ko xel ba tey itam bokk na ci yi nga xam ne dañ koy taamu buñ ne tam tey la tabaski su ko xëyee mën naa mel ni ku xëyee maanaam koor dafay mel ni rek ku xëyee koor nga xam ne bu xëyee day ñàkk lekk ñàkk naan ba julli ji tabaski ba ñëw day xëy rek xëyewaale koor ñàkk lekk ñàkk naan ba julli tabaski ba ñëw bu jullee julli gi ci yoor yoor ba ñibbi si këram nag su rayee am xaram su ko defee buñ ko feesee resu wax nañ ne bu ko mënee mën na cee dog bu ko mënee mën na cee dog maanaam mën nañ ko ko lakkal nii mu xewlu ci su ko amul itam bu julli jee ba ñëw rek mu dog mu lekk baa mu naan bu julli jee ba ñëw rek mu lekk baa mu naan su ko defee tam bis la boo xam ne ba tey itam dañ ciy baalante ak kenn ku ne jéggalu moroomam ngeen sàkkul ci itam ñi fi jóge ñoom ngir yàlla jéggal leen ngeen sàkku itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge yàlla jéggal leen mooy sàkkul njéggal suñ maam yi ak suñ lenn ci suñ baay yi ak suñ mbokk yi ak suñu rakk yi ak suñ waajur yi ak suñ mbokki jullit ñépp rek ci mboolem rek ñi nga xam ne ñoom jiitu nañu ni ñu ñaanal leen yàlla na noonu ko ku sell ki waxee rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak ñun daan ko def ndaka jekk ba suñ borom subhanahu wa taala jële leen fi nga xam ne yiw yi nga xam ne bismillah moo ne ko yépp ñoom tey mënatuñoo toog di ko defal seen bopp te bañ fi nekkee mënoon ko dañ ko daan def dañ ko daan def baaqiyaat saalihaat yeeg julli geeg yooyu yépp rek ak tabaski yeeg yooyu yépp nga xam ne ay yiw la ay tiyaaba yu baree bari la ñu daan ko def ba tey yàlla jële leen fi nga xam ne mënatuñ koo def nii nga xam ne kon ñun ñi fi des rek te di ko def ñoo liñ ci mën a yéene waaleel ngir suñu borom subhanahu wa taala jotale leen ci yoolub lépp luñ ci jële te it ñaanal leen yàlla mu jéggal leen te itam mu yërëm leen ñaan yàlla sotti ci ñoom jéggalam ak yërmandeem nga xam ne ñenn ñi ay waajur lañ woon ñenn ñi ay maam lañ ñenn ñi sax maana rakk lañ woon wala mag wala soxna nga xam ne duñu woon ay mag waaye daal jóge nañ fi moom jóge nañ fi tey dañ fee nekkoon daan ko defandoo ak ñun ba yàlla jële leen fi mooy bis boo xam ne xëy na bu leen fi fekkoon tey ñu àndaat ko ak ñun sàkku ci yiw bi ci ne kon ñun ñi fi yàlla bàyyi rek ñu sàkku leen ci njéggalal suñu borom subhanahu wa taala ak yërmandeem te ñaan yàlla tiyaabe biñ ci jële bépp mu boole ñu ko ak ñoom ndax yàlla moom yërmandeem yaatu na lool wa rahmati wasi'at kulla shay'in su ko defee loolu lépp tam moom it lu mat a bàyyi xel la ñaanal ci way dawal yow bu baax a baax rawatina buñ demee ba egsi ci diggante timis ak gee bis yooyu buñ ci tollee ba nga julli timis ba eggal tam waxtu woowu nga bàyyi fi xel way dawal yi ba tey bu baax a baax ci ñaan leen yàlla njéggalam ak yërmandeem su ko defee ci yoor yoor bi booy julli jitam ak booy ñëw lépp bëccëg bi lépp rek dañuy bëgg ngay yendo baaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim su ko defee yooyu itam nga baril ko ci bëccëg bi nga baril ko ci bëccëg bi lool moom itam tiyaaba ju baree bare rek mi ngi ci loolu waaw su ko defee nag xam naa xëy na sax du ñàkk yu ñu fàtte yu ñu war a wax te waxuñ ko xam naa du ñàkk yu ñu fàtte xëy na yoo xam ne waroon nañ ko wax te waxuñ ko waaye li ci teew daal ci suñu xel lépp moom wax nañ ko nii su ko defee ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu fekke la ñu ko rek te kàttan nañu ba lépp lu ci ay ndigal ñu mën koo jëfe kàttan nañu itam ba lépp luy ay tere rek ñu mën ko wattandiku ni nga xam ne ni lañu ko teree muy rek la xawla wala quwwata illa billahi al alil azim nga xam ne amuñu pexe ci mën a wattandiku lépp luy ay tere amuñu itam kàttan ci mën a jëfe lépp luy ay ndigal lu dul ci ndimbalal yàlla nga xam ne ndimbalam rek ci lañ mën a jëfee ndigalam yi ndimbalam rek tam ci lañ mën a bàyyee tere yi ba tax na kon ñaan yàlla rek ñu mën a jëfe ndigal mën a bàyyi tere incha allahu taala kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñuy jéggulu ñëpp te sàkku ñaan ci mboolem jullit yëpp ñaan yàlla boole ñu jéggal boole ñu dimbali zaahir ak baatin saxal ñu ci jëfe ndigal yi ak wattandiku tere yi tamay ñu ngërëmam barke ku sell ki